嗯。 الذين صدقوا لا ينام الكافرين يرغبون في عرانهم في ولا سواء من كان يرجو لقاء الله بنا ويوم القيامة وقال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 في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الساهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز أنا ما كان في تلاف سيئة سيء أو نسيان تحريف كلمة عن موضع أو تغيير حرف أو تخديم أو تأخير أو زياد أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ابن أو أو تعجيل تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيق لسان أو خوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزغار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتب منها على التمام والكمال ومواذب من كل إلخان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرب معاديا ما حكم الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبساط والأمان ولا تحتم لنا بالسر وسخاوة ودلال وطغيان ونبئنا قبل المنايا أن من الغفلة والكسلان أمنا من عذاب الخبر ومن سؤال المنكر والنكير <coughs> ومن أكل ديدان وبيت وجوهنا يوم البعث واختخر خابنا من النيران ويمير كتابنا ويسير حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا فرصة الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا إخاك يا ديان استجب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 الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الخبر مونسا وفي القيامة صفيا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا حجابا وحجابا إلى خيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بإناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بصفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة بكل كلمة كرامة بكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حسب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل رفع رفعة وبكل سمن سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلالا وبالدال دونا وبالزاء زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالسين صفاء وبالصاد الضال صدقا وبالضال وبالطاء طهارة وبالزاء زفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالكاف كفاية وباللام لفظا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وسرا وبالياء هداية وباللام ألف اللخاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما طلبناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين محمد وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وامينك على وحي السماء واحينا على سنتي وامتنا على منتي واجعلنا من اهل شفاعتي واحصرنا في زمرتي واسقنا من حولي يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل صواب قراءتنا هذه لمن جعلتنا سببا لاجتماعنا هذا وآتي بالقرآن في خبر الساعة الواسعة والحجة البالغة وحول الثابتة ونور المستبين في اللحد المظلم وجافي الأدى عن جنبيه وارحمه وارحم واغفر لهم ولوالديهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آتي بالقرآن أمن يوم الفزع الأكبر ورقاء دسنة وتسخير الميزان الخفة وتيسير الحساب يوم العسرة والورود إلى رحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين العالمين اللهم ما أتاك بمن حسنة فتقبلهم وما أتاك من سيئة فتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك ممدو كانجي اللهم أوصي وإلى أرواح جميع أسرته اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما طلبناه من كتابك من كتابك العزيز هدية واسرة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك محمود كانجي وإلى جميع أسرته وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل صواب ما قرأناه وبركة ما طلبناه من كتابك العزيز هدية واسرة ورحمة متصلة منك إلى روح عبدك محمود كانجي وإلى جميع أسرته وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل ثواب ما قرأناه اللهم أوسع صحاب ذلك إليهم واجعل نور لسان بين يديهم اللهم أكرم به مقامهم ويسر به حسابهم وضاعف به ثوابهم واجعل رقيق مختوم سرابهم اللهم أنس وحدتهم وارحم غربتهم وتجاوز عنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا من أزهر الجميل وستر الخبيخ ولم يؤمن آخر الجنة يأتيك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة يا باسل اليدين برحمة ويا سامي كل نزوى يا منتهى كل سكوى ويا كريم السقي ويا عظيم المن ويا مقل العصرات ويا مبتدئا بنعم قبل سخاقيا يا ربي ويا سيدي ويا مولاي غاية رغبتنا أسألك أن لا تسوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النهار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا صفيته ولا دينا إلا خديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين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 اللهم على di ñaan borom bi am njëgal yàlla nañ boole jégal ñun ñëpp defal ñooy xéewal ñun ñëpp e, di sant mbooloo mi nag ndax lii ñu defal góor gi defal ko njabootu góor gi defal ko waa dëkk bi yépp kenn amul payam alxuraan kenn amul payam kenn amul payam benn aay alxuraan rek. ku la ko jàngal. ku amoo payam. waxtu mu jàng alxuraan yépp nag. wàcc kaamir ba mu jeex. loolu ku la ko defal amuloo payam. kon ñu ngi leen di sant bu baax. E di commencé cant gi ci imaam Ndiaye Mansour. cant e su ko defee. moom moo wasaare cant gi. ci kilifa diine yi fi nekk yépp di nuyu chef de village Abdou Aziz di ko sant. aki ko ak bépp kilifa aada bu fi nekk. ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. e mbir mii nag. li ko sabab. li dañoo am njaboot goo xam ni. nee ay doom lañu. ñii ay doom lañu. ñii ay jarbaat lañu. ñii ay sët lañu. ñii eh, ñu ñëw seet si ma. nee ñu ñëw seet si ka moom Maodo. ni ni ni ni yow yaay suñu kilifa. yéeg nañu li nga daan def ci góor gi. yéeg ni ko daan ñaanal at mu nekk. waaye dañoo bëgg. waaye ñun ngeen daan daj coono yooyu ngeen daan daj ci góor gi. ngeen delloo ñu ko nag. ngeen ko nag. teg ko suñuy loxo. loxo. Eh, ku am njaboot gu mel noonu nag. danga war a sant yàlla. ndax loo daan def. ñu ñëw seet si la. ñu la. ni leen nangu nañ ko ci yow. nangu eh, ñoo koy def léegi. ku la ko defal. ku loo war def lu sant yàlla. du sant yàlla. te gërëm leen te ñaanal leen yàlla. Eh, wax dëgg yàlla suñu xol sedd na lool ndax njaboot moom. ni la yaay sama kilifa. moo gën a neex maay sa kilifa. njaboot su jëlee kilifteef jox la. jox la. te forcé woo ko ci dara. te ñu mënal seen bopp. te ñu mënal leen dara. danga war a sant yàlla bu baax. te njaboot gi defal nañ ma loolu. defal nañ ko képp kuy seen kilifa. ñoom ñëpp ñu ngi nii toog. su ma bëggee lim. damay juum. walla mu manqué. waaye ñoom ñëpp ñu ngi nii toog. kenn manqué wul. jarbaat yeeg. dëkkandoo yeeg. doom yeeg. ñëpp ñëw nañu. et e di beral nag cant. ak nuyoo. mbokk yi jóge Chérif loo ndax kii di El Hadj Modou Kandji. Chérif Lo la cosaanoo. waajuram bu góor njaga kanji lañ ko daan wax. góor njaga kanji lañ ko daan wax. Eh, mu newoon Chérif Lo. mu nekkoon Chérif ñi mu meññ ñi ngi fii ci ci mujjataay bi. am nañu agsi léegi. agsi léegi. kii nga xam ni mooy xalifa bi. ñu koy wax euh, boole kanji. moom waajuram bu góor. ak góor gi ñoo bokk ndey ak baay. moom moo doon suma taawu maam njaga kanji. njaga kañ ji kon kàddu yi suñ koy yëkkatee suñ koy yëkkatee moo ñu suñ jox ndigal suñ joxloo ndigal duñ koy yëkkati ndax kàddu yi moom moo ko moom ndax kilifteef moo war di dox fu ne e, kon yàlla nañ yàlla defal suutura ñun ñëpp e, damay sant waa Mbambilor nag ndax li leen di sant bis ba góor gi génnee àddina

jàngal fi ay nit. jàngal fi jëriñ fi lu bëree bëree bëree bëri. dañoo niseroon. def ko ci bopp jumaa ji. ñu rëy ko lool. ma ni leen. góor gi ëppale wuñ leen ci. lépp lu ngeen ci xalaat rek. su ko defee rek. ñu fekk si leen ci. kon loolu moo sabab. dencam fii ci jumaa ji. day jëm fii loolu nag ku la ko defal defal na la bu rëy rëy rëy e ci turu mbokk yi Alaaji Modou Kandji yii fi teew ñi teew ak ñi teewul ñi ngi dal di yëkkati cant di ko jëme ci waa dëkk bi ndax teraanga boobu ñu defal mbokk yi Alaaji Modou Kandji defal defal kay bokkam kenn amul payam kon yàlla mi mën a fay yal na leen yàlla fay. Eh, kàddu yi dama koy yemale foofu rek. Eh, di leen sant bu baax. di leen gërëm bu baax. yéen ñii fi jàng alxuraan ju tedd ji. yal na yàlla gën a leeral seen xam-xam. yal na yàlla gën a barkeel seen xam-xam. Eh, may ñu fekk ko ay déwén yu bëree bëree bëree bëri. képp ku fi indi fi aajo. yal na ko borom bi faj. képp ku fi indi soxla. yàlla na ko bi faj. Eh, ñi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. wasalaamualeykum wa rahmatullah. mbokk yëpp moom Fallou. di ziare ñëpp. ne kaddu yi dugud ndax li tax bu yëkkati kaddu daanaka sax papa Kandji wax na lépp lu bari waaye moom ay kaddoom ci pap la jëm na ndax nii mu njaboot yi taxawaay bi njaboot yi taxaw loolu moom mii moo ko liggéey démb ñëpp teg ci bët ne ñu ngi sant yàlla nag di ko santale yàlla ndegam li mu doon nasab ci xale yi ba tey yàlla jëmbal ko muy sant ne cant googu ñun ñëpp war nañ xam li muy wax ci góor gi nag mooy li alquran wax wala borom xam yi li mu wax ci li ñuy wax ci alquran képp ku ko téye téere téye fu te jël ci ku teg jaar ci ku tedd mboolem jëmm joo xam ne taxawal nga alquranu karim fu fekk mu doyal la foo fekk mu teral la ku la fekk mu teral la ku la fekk si teral la kon góor gi mën nañu suñu borom teral na ko ci àjjana jë amul benn werante ndax alquran mooy waxi yàlla kër gii daal nee na moom wax ci lott na ci lott na ci lool moom ci maanaam li ko sanc xam li ko sàpp ba indi jataayu tey bii tey lépp tënku ci alquraanu karim taxawul ci deret deret taxawul ci gaño taxawul ci meen soqiwul ci leen waaw muy ñett yooyu saxu ci alquraan rek la jógee mbirum alquraan nag wax ca ne lott la ci lool mu bëggoon jël kàddu gi jox doomam ji soomam ji muy xaas Malick li des ci góor gi moom lay jox kàddu googu mu dimbali ma ngir yàlla jottali ma kàddu yooyu doy na ko sëkk julli ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaare ko suñu imam bi muy ci imam yi di ñëw sant ñi fi teew ñëpp ñaan yàlla bu baax mi yàlla na fi yàlla jokk wàcc jàmm ñun dañoo bokk ci famille bi. ah biñ ci bokkee itam xale bi nga xam ne sunu sët yi ak sunu doom yi sunu jarbaat yi. bi bokkee ci famille bi te sunu xalaat yi xalaat bi nga xam ne moom la suñuy jarbaat ak sunuy rak ak sunuy doom sunuy sët. teg teg fii. ba teg lii ba tax mu ñu andi lii. ba tax ñu andi lii teg ko. pour ñaanal suñu baay la. loolu ñu ngi koy doole rafetlu. ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. di ñaan yàlla yàlla jëm kanam. di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jëme kanam. lu baax du doy. ndax lu baax du doy. góor gi day man xam naa ne ñoom lu bari. sama papa dama daa yónni ci moom. góor gi day sama baay daf ma daan yónni ci moom. boobu maa nga nekk Chérif Lo. boobu maa nga Chérif Lo. boobu dëkk bi demagul nii. boobu dëkk bi demagul nii mu demee tey. xam ne xale yu bari xamuñu. boo xam ne xale yu bari ñu may. nee ñu fi nekk boobu judooguñu. boobu dama daa jóge Chérif. boobu daa jóge di ñëw fii mu di ma yónni ci baay Jabel kañ mu doon ku baax sunu baay bu baax ma ne samay baay ñoo bokk kanj gi ñoo bokk ndey ak baay pap Mori kañ moom papa moo nekk maam bi sama yaay gaañoo sama papa gaañoo moo yorewaat sama yaay ki topp ki topp ci moom moo di kanj moo yoroon sama yaay nga xam ne kanj ji toujours nag ñu ngi defar. toujours ñu ngi defar. yàquwul nag. yàquwul nag ñu ngi ñaan yàlla mu gën a jëm. waaye ñu ngi ñaan yàlla defar gi daal gën a gëm kanam. taxawaay bi nga xam ne xaj na taxawee nañ ko. taxawaay bi xale yi taxawee. ñu ngi koy rafetlu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. ñaan yàlla yàlla jëm kanam. ñaan yàlla yàlla jëm kanam. ñaan itam lii ñu ko fi ñaanal. di ñaan lii ñu ko fi ñaanal. yàlla xeeb dolli. yàlla xeeb dolli. yàlla fekk leen mu fekk leen yàlla yaatal ko lool. yàlla yaatal ko lool. fekk ñu fay fekk. yàlla yërëm leen jéggal leen. chaque année maa fi ñëw. ne chaque année mu ñëw fi. parce que dafa am daayira boo xam ne maa nga ñàgg. dafa am daayira boo xam ne mu nga ñàgg. jigéen ñi nga xam ne ñoo yore ñàgg nekk mm. Ahmadou Ba fii bii ñuy siyaare si. ñi yor ñi ñi nekk ñàkk ñëw fii ji seet am daayira di am daayira boo xam ne Cheikh Ahmadou Bax mi ñu ni saar si ak chaque année Ceerno Amadou Ba Ceerno Amadou Ba Ceerno Amadou Ba waaw bi ñuy siyaare ak ak jot jigéen ñi maa leen di jiite daayira bu jigéen ñi moom mii moo leen jiite bu ma ñëwee fii saa yu ñëwee fii dinaa ñëw ci jàkk ji mooy sama ji ñëw ci jàkk ji bu ma ñëwee dinaa kër ñëw ci kër bu ñëwee gis ci kër gi siyaare leen nemmee ko njaboot nemmee ko njaboot gi doog doog bu may ñibbi tam doog a ñibbi buy dool delloo chaque année nag bu def ko saa yu ñëwee ci fii ci jumaa ji foofu lay jullee jullee bu ma ñëwee dinaa ñëw ci kër gi ñëw ci kër gi ziyaare leen nuyoo leen fa tabaarakallaahu ñi ma fi fekk xam nañ ko ñi ma fi fekk xam nañ loolu ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko saxal man mii fa ma jógee moom fa ma jógee dama bàyyi dëj dafa bàyyi dëj sunu chef de quartier délégué de quartier ba asne moo gaañu moo gaañu te ñun ñoo ko doon taxawee te ñoo ko doon taxawee demee ba nga xam yëf yi kii na mu demee ba xam ne yëf yi xam yi am sol ak kaamil bi waaw ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla mu tàggoog nekk ma maa ngi dem maa ngi jëlti fii looloo ko ni fii tey tase ma naag moom ci sama dëju grand bi ne taxawal nag dal ci kii dëju magam ne dinaa ñëw الله كاد غوغون موم لا سام با ام تي في جرجف جرجف كاني بابا بابا ما شاء الله امين امين جرجف